maanaam bés baa ngi noonu ah sama directeur maa ngi nii de. Papa Sow yaa ngi entre tey sa rak mooy tudd tey jël naa directeur jël naa njool mi. Junior a ngi nii jam kii baay naa dafa la am ci